Assalamualaikum, euh, suñu mbokk talibé internet de Diawartoulah TV donc comme niñ leen ko waxé won sank, dañuy continuer euh, suñu interview yi donc euh, la ñoo ngi ak jëwriñ hygiène kon dañ may dama leen dama kay bay mu nuyo nuyonteeg yéen wax leen lan moy rôle commission am si jour tiant bi bisimilah jëwriñ. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. xanaa dañuy tambalé suñu kàddu ci sante Yalla bu baax ci bi ñu maye katan ak tawfiix bañu yegg ci bis bi di sante Serigne Touba Khadim Rasoul mi nga xamne mo waral bisub tay bi di sante tamit ki nga xamne mom lañ fi xolé tay Serigne Touba muy Cheikh Muntaha di ñaanal lool mu yagg fi lool ti wër barki Cheikhul Khadim nonu tamit lañ koy ñaanal ki nga xamne tamit moy jeewriñu liggey bi di Serigne Abdul Aziz Khadim awba Ba diko di ñaanal mu yagg fi lool te and ak wër ba yagg taxaw liggey bi nim ko bëgge barki Cheikhul Khadim nonu tamit lañ koy ñaanale jëwriñu daayira bi yëpp waaw ba ci kaw ba ci suuf rek ñëpp rek ñu ngi leen koy ñaanal suñu borom gën leen a kattanal ba bis bi bu ñëwate rek waaw ñu def ci lu kawe njort xanaa dañuy présenté wu rek man jili Touré laa tudd nekk jëwriñ commission hygiène waaw ànd koog nag ay mbokk taalibe yu pasteefu wax dëgg si yàlla daanaka rek ñun dañoo yor commission bi nii rek waaye daanaka liggéey bi ci ginnaaw lépp gaa yi nekk ci suuf di ko def waaw ñu ngi ciy santaat bu baax commission hygiène nak moy commission bi nga xamne mom waaw ku wax hygiène rek wax ciat ci walu bis bi te ku xam ciat tamit xam ñu ngi tollu ci contexte bo xamanteni contexte sanitaire lañ koy wax wala bo xamanteni ni daanaka rek manam mbirum ciat mom dañ day nekk lo xamanteni lu man di xefu mbolo lu dajeeti rek day nekk priorité ma tax ne def nañ ci liggéey bu kawé wax dëgg ci yalla ku ñëw ci bis bi ne commission hygiène niñ taxawoo bis bi kéman la mbolo mi bari na trop waaye terewut waaw noppalu wuñ te ku ñëw dal di nga ne bi tawféexe na set na lépp daal tawféex la waa commission hygiène nag ñoom ñoo yoree lépp loo xam ne jëm na ci saal bi nga xam ne fii la góor yàlla yi di kuréele lépp luy cet gi ñoom ñoo ko yore ñoo koy ñoo koy sàmm bu ko ñoom ak waa commission cuisine tamit dañuy liggéey ndax euh, waa commission cuisine ñoom lépp lu ñu tilima taqal ci ay bool wala mbana lépp rek waa commission hygiène ñoo ko yor ñoo koy raxas te ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib wax dëgg si yàlla waaw xam naa daal noonu laa koy présenté commission hygiène amee beneen question rek jërëjëf jëwriñ euh, kàddu yi am na solo te leer na nañ euh, kon ñun question bu ñu amoon mooy euh, par rapport à commission hygiène bi yan matériel ngeen amoon yan matériel ngeen jëndoon pour jouru cant bi. waaw commission hygiène nag li ñu jëndoon ci matériel moom xam naa ne xawoon naa takku lool ba sax daanaka bi ñëwee ba ci bis bi sax matériel yi daanaka dañuy gis ne dafa manqué waat ndax mbooloo mi ñuy ñëwee kiimaan la kenn mënu ko natt waaw lu ci mel ne lii ma yor rek ci saak poubelle yi. en plus de 200 sacs poubelles utilisé nañ ko loo xamante ni ci heure añ rek lañ ko utilisé lu kéemaane loolu rek mooy wane ne cant gi kawe na ndax euh, heure añ rek nga utilisé lu toll ni 200 sacs poubelles te ba léegi nii jeexagul dañuy mujj di jëndiwaat ay saak di indiwaat ndax daanaka fi ñu ko doon natt ak fi mbooloo mi ñëwee kéemaan la loolu tawféex la waaw li ñu jënd ci ay matériel nag maa lépp luy matériel lu hygiène moom jënd nañ ko ci wàllu toilette lépp lu ñu fay soxla lépp moom mat na ci wàllu cuisine lépp lu ñu fay soxla ci mbiram hygiène jënd nañ ko période du Covid ñu ngi koy romb waaye terewut prévoir nañ lépp loo xam te ni képp ku ñëw bëgg masque dinañ la jox masque képp ku ñëw bëgg gel hydroalcoolique es gel yaa ngi lépp daal mi ngi fii waaw moo donte sax euh, traite masque yi fi mu toll nii c'est pas obligatoire waaye terewut képp koo xam te bëgg nga koo takk masque yaa ngi fii lépp jënd nañ ko teg ndax euh, bëgg taaral bi rek ah macha allah na solo lool surtout euh, gel yi ak masque yi parce que Covid bi moom ah cas yi wàññeeku mais xam nañ ne que Covid mom moom jeexagul ba léegi donc jëwriñ euh, so doon wax yan difficulté ngeen rencontrer ci seen commission bi euh, yan difficulté exactement ngeen rencontré euh, durant journée cant bi. difficulté xam naa difficulté moom dina naqaree identifier <laughs> ndax kuy seen hygiène moom ku fa nekk moom waroo am difi leen luy difficulté ndax moom yow li sa liggéey mooy nit ñi di taqal da ngay fomp rek maam lu mu gën a da ngay gën a kontaan <laughs> moo tax daanaka moom ay difficulté moom gisuñu ko ci ñun liñ ci gis daal mooy lépp mbégte rek ak tawfeex waaw sant suñ Tuubaa rek waaw ndax commission moom ku ne xam na ne moom lu gaa ñi gën di taqal di gën di tilma rek ñun ñuy gën a bég ndax loolu mooy suñu liggéey <laughs> macha allah macha allah jëwriñ lépp si sant seen Tuuba rek. wala kon jëriñ suñu prochaine question mooy ñaata yoon ngeen participer ci euh, cant bi en tant que membre euh, de commission hygiène en tant que membre commission hygiène nak euh, jàpp naa ne ren moo nekk suñu quatrième année su ma jumut waaw suñu juma jumut daal quatrième wala troisième année xam naa ñu ngi doon bokk ci commission hygiène donte nekk ñu woon jëwriñ ci sax ay jamono ndax ku ñu wax sëñ Xaadim Kànji moo ko nekkoon ren jii rek la ñuy door a commission hygiène ndax at yi weesu yëpp suñu Xaadim Kànji moo ko yoroon. ba léegi sax naanaka mi ngi ci commission bi xanaa dañoo jiite rek topp suñ ginnaaw ndax daanaka difficulté buñ ci am rek wala lépp lu ñu jaaxle sax ci moom la ñuy delluwaat ndax comme moom moo ñu ci ëpp expérience te moo ci gën a yàgg waaw xam naa rek moom tamit ndax moom li mu li mu li mu boole moo bari ba ñu teggal ko lool rek daanaka mu waaye taxul mu bàyyi loxoom kon xam naa ren ji lañuy ñuy door a jiite commission bi waaye commission hygiène moom bañ duggee ci daara ji ba léegi foofu la ñu féetee ah macha allah amati euh, yi soo doon euh, noté évolution bi évolution au niveau de commission hygiène bi nan nga kay nan nga kay euh, nan nga kay jappé ana di santa bu baax rek ndax xam nañ ne ak yokkute la rek commission hygiène bi mom ci cant bi comme lima wax sank rek lepp yokkute la rek ndax liñu liñu comme par exemple liñu nax tay rek dañu daanaka li liñu jëndon ci matériel ci ci walu sac poubelle walu sou yi nga mom lañu def ci toilette yi tout ça dañu diko yokkat ndax mbolo mi ni mi ñëwé ndax comme année yi passé dañu jàppoon na rek même nombre de personnes lañu amar wala li yok du bëri waaye dañu gis ne ren danaka mbolom bi dafa doubler wala mu tripler donc xamna na yoy bob évolution lañ ci amne gis na dal mbolom mi mi ngi yok di ñaan suñu borom tawfiixal ñu ba nga xamne dinañ am suñu bërëbu bopp bo xamanteni ni bu yaatu lay doon bo xamanteni buñu buñ ñepp dinañ mëna a ci salle bi te duñ am benn jafe-jafe wax dëgg ci yalla ndax tay ku ñëw ci bis bi rek di nga xamne mbolom mi mom salle bi attanu ko ndax mbolom mi li nekk ci biti sax daanaka mo ëpp li nekk ci biir te saal bi ku dugg ci biir gis na fees na muy saalu soxna yi muy saalu góor yàlla yi kon daal dañuy ñaan balaa heure bi déwén suñu borom mën na ko mën te mën na lu nekk te moom dañ koy ñaan rek mu ñuy may dañ koy ñaan rek balaa heure bi déwén suñu borom may ñu suñu bërëbu bopp boo xamante ni fa koy cante muy bërëb bu am solo barke Cheikh Khadim yàlla na ko suñu borom def amin amin amin jëwriñ euh, donc suñu question rek mooy lan mooy sa mot de la fin lan ngay wax euh, suñu internet euh, la ak suñu invité yi wa li ñi tambali rek xana di leen sant yeen ñi nga xamne yeen yéen fi di def euh, interview bi wa dëgg si ndax li dafa am ci solo lol ci cant gi ndax dinañu permettre bu année prochaine ñu xol lu ñu daw daaw ak fuñ ñu daaw ndax archive mom dafa bax suñ borom bu ñu ba technologie tollu fenn fi tamit manam euh, ñun tamit dañu wat ci profito diko utiliser ndax archive mom lu bax la ndax euh, am amon nay jamono mënuñu ñu a am li dañ doon cant ba weesu bu duñ xam luñ cantoon wala duñ ko gis fenn waye image yi dañuy yaakaar ne day dess lo xamanteni ba nga xamne dom suñuy dom sax wala suñuy seut bu ñëwaaté fi dinañ gis na ñun fi lañ tolon kat te ñom fi lañ ko yobbu kon xamna naa ne yéen dañ leen di sant bu baax di ñaan suñu borom gën leen katanal ba yeen tamit bu bala waxtu wi déwén tamit seen li ngeen yor mu gëna kawé kawe ba kawé kawe ba ci xew xadim suñu borom mën nako ko nako boram suñu borom def di santat bu baax jëw di daal di sant ñi nga xamne ñoo ñew wuy si ndax wote mbolo ñew wuy si la yombut ndax ku ne xamna na ñu nekk wax dëgg si yalla kenn amut temps waaye nak suñ tuwaa mom bu wote daanaka mom lo lo japp rek da nga koy bàyyi te ñëw te gis nañ ne ñoom ñi fi ñëw ñëpp gis nañ ne moom Sëñ Tuubaa jaral leen lool ndax jot moom jàpp nañ ne kenn ku nekk amoon nga loo war a def tey waaye da nga koo bàyyi ñëw ci bis bi kon yàlla na leen Sëñ Tuubaa fay yiw yi nga xam ne moom lañ doxee ñëw ak yiw yi ñuy delloowaat yàlla na ko Sëñ tubaa fay fay leen ko ba yegg ci seen ak njaboot yegg ci seen i sët barki Seexul Xadiim jërëjëf jëwriñ si kàddu yu amati solo rek macha allah macha allah ah kon euh, suñu interview bi sûr, na kon ñoo leen rendez-vous sur suñu chaîne euh, YouTube encore une fois nous ngi leen invité ngeen abonné wu Instagram Facebook et euh, YouTube ngeen activer cloche de notification pour ne pas rater suñu ay vidéo merci beaucoup.